pour Sonko le duo Sonko Diomaye euh, nan nga ko nan nga ko nan nga ko gisee bon euh, Sonko Diomaye wax dëgg yàlla euh, pour man bettuma que Sonko nekk premier ministre même si bu ma da ko doon conseil du ko du ko conseil mu nekk PM bu ma ko doon conseil du ma ko conseil mu nekk PM xam moo tax nekk PM xaw a dangereux ci moom damay wax sama xalaatu analyse analyste rek tey bu Diomaye réussir Diomaye mooy président de beneen élection Diomaye mooy ñëw moom la ñuy tàccu c'est le mérite de Diomaye. pas forcément. non mais si c'est son mérite. ils ont peut-être un, non, non, un non, une, une une une entente. bu Diomaye échoué mar day taali Sonko comptable de cet échec parce que mënu ci génne boppam posture bi nga xamee ni que. mënoon la ko am mu nekk à une posture de retrait gouvernement bi dox bu amee lu ci jubantiku ñu ne ah fi Sonko nekkoon bu fi amul lu fi jubul te bu nekkoon ci biti bu doxee dañ naan Sonko mooy pousse moo tax mu dox nga tey bu nekkee ci biir bu doxul da ciy bokk ça c'est un premier risque surtout deuxième risque bi nga xam ne am na ci xam nga dañ naan on ne met pas tous ses œufs dans un même panier bu panier bi tojul nag moom xëy na. bu bu benn nen tojul du am problème bu amee problème bu bañee amee problème ko yëg kon loolu mooy li ma bëgg a expliquer foofu par contre euh, tey euh, contexte bi ñu demee nii euh, man su ma doon ñëw damay comme poste de premier ministre dama doon jël un technocrate. comme ni Macky Sall defoon avec Abdou Mbaye. pare lu mel noonu par exemple su une formule te yàlla xam na ni ah damay wax sama axulahi taala rek. Euh, bi ñuy xaar ñuy nommé premier ministre hmm? bi ñuy xaar bi ñuy nommé premier ministre le soir ma gis président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko audience avec Makhtar Diop. sa xel dafa demoon ci moom. non xam nga laa wax non sama dama laa sama ñu de ça c'est ça peut un excellent casting. Euh, Makhtar Diop mosuñoo toog ah parce que Sénégal boo waxee rek dañu yaakaar da nga da ngay kii mosuñoo toog mosuñoo toog benn place xëy na nag moom di wax ak moom dara hmm? du sama xarit mais nag ba ma ko gisee dama ni c'est un bon profil ci contexte bi parce que sox Sénégal soxla woon na mobiliser ay financement soxla na activité économique démarrer quelqu'un qui a un carnet d'adresse sur l'international qui est connu ñu ko defoon premier ministre wala un poste de responsabilité ba nga xam ne dina mën a indi investisseurs yi leen doon na baax ci réew mi ci contexte bi foofu laa ko gisee woon bon après ma gis ni ko demeewul noonu c'est une audience protocolaire ou de civilité ou de courtoisie c'est selon mais jàppoon naa ni que loolal doon na baax ci réew mi ci contexte bi ñu toll fii